bokki jullit yi gannaaw ba sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp di baalu xaq ñëpp yàlla nañu yàlla boole jéggal suñuy rëcc rëcc suñu diggante ak moom te dox suñuy diggante ba yu sew yi nga xam ne day am ba tax koy wax ci alxuraan ne bu ëllëgee ñiy dem aljanna ñëpp bala ñu faa dugg danañu xool ca ñoom loolee dindi ko ñu soog a dugg aljanna yàlla na ko yàlla tàggaleen ñun fii ba bu ñu yóbbaaleel kenn dara tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee di ci fàttalante aljumaa ji weesu muy ponkub lislaam bu mag boobu nga xam ne dañoo tollu ci jamonoom yàlla waxoon ñu ci alquran ne alxajju ashhurun maalumaat euh, ñuy waxtaane julli di waxtaane weeru koor weeru lëm dëgg-dëgg ngir jox at makka àq ji ko war a jox xam na ci mag ñi la bokk waxtaane woon nañ keroog ñi nga xam ne ñoom la war anakum war waxtaane woon nañ ko waxtaane lenn ci ñeenti ponk yi nga xam ne moo ko wër kenn munta aji makka te jaaroo ca ñeent yooye yépp benn bu ca way bàyyi diwén rek la koy mën defaat waaye raw na ko ren raw na ko ba noppi koo xam ne nag mi ngi soog a fas yéenee dem muy yoonam mu jëkk donte benn yoon la ci dund war naa bàyyi xel waajtaay wa ci nañu ko war a waaj lépp ginnaaw mën na ko waaye mu bàyyee walla ci xel ne e, daf fi bàyyi ak njabootam bàyyi fi alalam bàyyi fi réew mi mu dëkk cosaanoo fi nga xam ne kenn du ko xool bëtub loo fi wut ginnaaw yooyu yépp nag jar na ko ba def leen fi naan ñukk dem war naa yóbbulu danañ ko seet ba ne ko wér nga mën ngaa dem léeg-léeg it mu yor xaalis te junjoon nañ keroon ne képp koo xam ne daa am ñu muy yóbbu makka ne leen dimbale waale defal leen ci seen jiba dara ba bu ñu àggee yañ fa war a def yépp seenum xel dal ca waaye su fekkee yóbbu nañ leen ba ñu àgg te wóor na leen ni seeni poos dara nekku ci te bu leen numéro seen waa kër di woo mën nañ koo tànqamlu ndax ñaawoon nañ njortu ci ne lañ fa bàyyi woon jeex na loolu mat naa waajaaleel ku ñuy waajal muy dem kuy demal boppam nag taxul ñuy wax moom waaye ku fas yéenee dem wax nañu ne tey jii la mbind mi di yam kon ñii dem ñëpp xamees na leen dem ñëpp xam nañ seen bopp ñu bàyyi xel ne lii laytaay ci jaamu yàlla gu mën a doon aj ak i bokkam laytaay la laytaay ja mooy jox ca yàlla cir bam ca war a am mu yem ci moom kepp ci misaal nattal ko mbubb moo xam ne bu ko tuut tànk solee mu ëpp ko su ko mag tànk ëppee solee mu mu mu xat ci moom wala mu ëpp ko ba tey waaye jox yàlla barab bam ca moom te yàlla képp donc daal moo tax nit ki di aji ndax seydina ibrahima alayhi salaam ba ko yàlla digalee mu woo nit ñi jàngal leen lan mooy diine yàlla daf ko ne soo demee ne leen daal wax leen wax ñu dégg ngay def ñuy jëf li ngay wax ñuy dégg mooy danga naan leen julli gii may julli mooy salaa nusuk yi may def yépp nusuk mooy jaamu yàlla goo xam ne daa am waxtu daa am barab bu ci mel ni aj ñeenti ponkam yooyu ko ëmb ponk bu ci nekk daa am barab am waxtu wu ñu koy def boo xam ne bokklewu kook moroomam looloo tax ñu naan manasikul xaj mu ne Seydina Ibrahima soo demee na leen julli gi may def nii ak manasik gi may def yépp bu aj màkk jotee yàlla xamoon na lépp sama dund ak sama dee lépp yàlla laa ko jox moom lay seereel la ma cay def ak la ma cay bàyyi daan ne loolu lañ ma digal ku ko defee ni nga ko defee ni man man doon naa jullit ba noppi muslim laa fab naa sama lépp jëbbal ko suñu borom waaye ku bëgg a agsi fi ma nekk it yoon woowu ngay jaar looy def rek bu dee santaane bi yàlla la rawatina muy bu mu joxañ na jiital wéetal ca yàlla te yàlla dong tax di ko def waaye bi muy wax Seydina Ibrahima it di ko woo di ko digal mu woo nit ñu aj ci Makka daf ko ne fii ma lay wooteloo te nit ñi danañ ñu wuy si dugg lu nekk ñëw jóge fu ne ñëw nanga ko bale bam set wicc raxas ko bam set wicc fobeere ko ba kuy ñëw ana lu ñu ciy raxase ko fobeere mooy bokkaale yàlla kenn na nanga fexe ba mu set ba mu set wicc moom fu ko way mën a amee it balaa ñëw nañ ko waajal ba bu ñëwee xam ne fii moom saal buñ defar la néeg bu ñu defar la ba mel na mu war a mel bu fi kenn dugalee ak dàll yu taq waxuma la da dàll yu taqul sax far waxuma la dàll yu yoo xam ne fu ko sumb ñu ne xool leen bu ko fi kenn anti ñaareelu fàttaliku bi nga xam ne kuy aji makka war na koo bàyyi xel mooy ixlaas ixlaas mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne Euh, koo xam ne bi muy dund lu yàlla santaane woon ma nga ca su faatoo moo yayoo radiallahu anhu al muxlisu moo yayoo radiallahu anhu ku dul muxlis nag rahimahullah ak rahmatullahi rek moo tax mu ne diina joo xam ne daa ànd ak ixlaas mooy diina joo xam ne amul njistal amul dégtal déggtal amul aaw mooy naw naw jëf yàlla rekk yàlla daal moo tax yàlla wax ci alxuraan ne ki teg tànkam ci diine diine ju ànd ak ixlaas mooy kuy jaamu yàlla yi ne fàng fàngaaral lu ci nekk yay tax sart ya wér mu def ko ba nopp yàlla tax yàlla rekk nee na ku teg tànkam foofu mu ngi teg tànkam ci diine kon kuy aj makk it war naa bàyyi xel njistal kese ak mën a dem makka di lim ñaata yoon la fa dem ak di ko naw dem ba yàgg mu naagu ne moom ginnaaw yàlla nee na woon ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku aj makka def nañ ko war a defe day mel ne bis bu mu gënee àdduna te la ko ci yàlla yi fayee mooy aljanna mu far naagu ci mbiram ndax yoonu makka yu bari yàlla ñu ci yàlla musal waaye ñetteelu tomb ba mooy lu ci nekk bu koy def mu teg tànkam fa ko sallallahu alayhi wa sallam tegoon ndax yàlla mi yónni woon sallallahu alayhi wa euh, moo gën a xam nit ñi ñépp du leen sant mukk loo xam ne mënuñu ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la muy def ca kaw ñépp di ko gis wala mu naan nit ñi kaay la def ko te bokkut ak farata sax loolu lépp lu nit di man lay doon ndax jamono ba mu koy def jëmmi nit lay doon yor melokaan doomu aadama di sonn di xiif di mar moo wax ci xadis boo xam ne soxna Aïchata radiallahu anha moo ko nettali nee na yonent bi nee na jépp jëf du juwaay di jëf te di ko tuddi ak jaamu yàlla te da caa dàkk ak xëram daf caa dàkk ak bëggam yàlla ak bëgg yonent bi ci ak dégg kese ñu xool jëfam joojee xool xool amut ab tegtal ci yàlla nee na amut ab tegtal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na loola nee lañ ko ko fay tegal su doon suñ ko fa teg mu mel ne yàq yàq bu forox sax ñàkkut ñu soxla lu forox waaye yàq bu naqari yàq bu naqari kenn kuy nit du ko soxla na ko kañ ko yàkkaloon lam ca doon bañ rek la ci ñëpp di bañ kuy nit ku ne la cay bañ moo tax mu ne dañ ko koy tegal ne ba mu ñëw su ko laajee ñu jox ko ko su ko ñu delloo ko ko nekku lii yaa ko joxe woon yan ci yàlla musal foofu lay waxe ne xool leen ni may aja makka ngeen defe ko nii ma koy defe fu ma taxaw ngeen taxaw fa fu euh, ma tàll samay loxo ngeen taxaw fa tàll loxo xam ne barabam ñaan la saa bu ma summee mbubb ya ma soloon te mooy jëkk mooy armal bi summi leen seeni mbubb saa bu ma jëndeem xar wala jënd moom xar lu ma ca def ngeen xool teg seen tànk net fa ma ko degoon ndax <clears throat> buñ ko gënee jegeel si laajoon nañu suñ mët Lamin Jóob na li Sëriñ Tuubaa di wax ne ku aju ci man kullu muridin bii yaluusu yasaadu ak wa man taallaqa nangam kullu man taallaqa suñ mët Lamin Jóob na leen man kat yaar jaaxal na ma ci la ci jëkk mooy sama murit wóoraguma sama digganteeg moom ñaareel ba aju gi muy wax ba ma ko laajee aju mooy lan dafa ne ma aju mooy dal wuy dox ba yàgg mu jog joggi dara lam jog gi bu ko neen naaj ba war koo yóbbaale du génn dàll yu fenn da cay yem képp waaye nee na li ma jàpp nag murit ba mu cay wax mooy lam jog gi bañ a am xet bañ a amu melo su amee xet amu melo fu mu ko summi ñu ne xool leen dàll yi daal koy tàggaleeg dàll yi waaye su amut xet amutu melo fu dàll wa dugg mën na faa dugg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon fu ma xool leen ni ma koy defee ngeen di ko defee noonu teg sama tànk ndax fa muy teg tànkam fu ci nekk lu mu cay def yàlla ma koy sant natt na ko ba xam ne nit dana ko man sallallahu alayhi wasallam kon aj makka ab tukki la waaye bokkut tukki yi nga xam ne moom la ñu bari alal ñi di def dégg am réew dégg fa ay kéemaani suñu borom wala kéemtaan yu fa nit la liggéey mu jënd ci billet avion bu cher ànd ak njabootam yóbbu xaalis bu bari fas ko fay ne jaay ba mu jax tàkk dara tax koo jóg lu dul lu yéeme luñ fay seetaan rek bu ñëwee senegal wàcc Ndakaaru ñu ne ko Touba yàgg na koo dégg wala Casamance rawatina Touba bu ñëwee ba Touba ba war a wàññi ko delluwaat Ndakaaru gëm jóge woon ñu waxati ko Casamance wala Tambacounda mu ñoq li aw yoonam kooku jëmu fenn day wër rek waaye dulul foo xam ne it dañ fay dem rek ngir féexlu. lii ndaw ko ndaay yi di wër ñu naan ganaar ya bari na fa fir wi bari na fa naan yu sedd ya bari na fa te dagan kese déedéet waaye doona tukki boo xam ne it dañ naan kii la ko tàmbalee ci ay maamam musu ñëw jéeg màkk seen ngirug dund kese déedéet taqlid wala dëkk bi comme lañ ñu ko doon misaale keroog ku mus sa dem màkk wala nga delluwaat fa delluwaat fa am na looy sañ ak loolu sañ ci dëkk bi loolu tam taxul màkk jóg waaye dem itam saa bu ñu fay nettali nga mën caa bokk ca nettali ba taxul ñuy dem mag waaye tukki la boo xam ne gëm yàlla la jëfa ji ndigalul suñu borom moog julli mii nga xam ne dañu koy waajal ci am njàpp ak sol col mu laab taxaw fu laab mu tax laa jóg ñooyam képp ab àtte ni wolof di waxe ne suur du soppi aw sant waaye dem makk bu dee soppi aw sant it ginnaaw aw santam soppiku na jëmmam war naa soppiku jikkoom soppiku moo tax dem makka euh, bu armalee ba noppi ñetti xeet armale ñu doon waxtaane moo xam tamattu lay def moo xam xiraan lay def moo xam ifraat lay def lenn lu nekk ñi fas yéene aj makk ci fii ak feneen fu fu waaye doxee ba dégg ko ñaan nañ ko mu dem ci borom xam-xam ba mu dëkkal mu laaj ko aj daa am ñetti xeet borom xam-xam bi dana ko leeral mu fas yéene fii bala muy dem ban la ca war a def bu demee jàng ko ba mokkal ba mokkal ko rupp ndax kat nit ñaa ngi jàng dara di ko mokkal lu gën a jafe aj mag nit a ngi jàng lu ko gën a jafe foofu di ko man moo tax saa bu amee jot ba war a toog di seetaan télévision wala muy werante wala muy seete dalab diw ak diw na fab kurusam di zikr wérd wala mu jël téereb xasidaam di jàng xasida di ñaan jàng alxuraan su dee am doxantu bi muy def na dem defi tawaaf labbaykaw labbayk labbayk allahuma labbayk di julli ji ci jàkka ja di def lu baax ku sonn bu ko mënee dimbale mu dimbale ko kum ci coono dimbale ko ci wàllu yaram mu dimbale ko ca bu dee bëgg daanu mu jàppale ko su dee laaj aw yoon mu wan ko ko su ne ko dama bëggoon lu ma jënd nangam te bàyyi faj fàtte fa sama weccat mu gënal ko ko te yàlla tax lu mu mën ci taxawu nit ba cay topp mooy mu xam ne foofee muy dem yàlla beral na ko loxo lool ci pàkkam yi lool ndax barab la boo xam ne tuur fa deret dëgganut fenn waaye foofaa ci raw dagg fa garab romb garab rek amoo ci benn yitte même boo ca amee yitte sax bu fa daggee garab am na lu ñu ko ciy teg waxuma laa romb nga di ko jéem a jàpp wala ay xëti dox ci sa tànk nga namm yàpp xëti jàpp benn déedéet foo xam ne garab ya sax yàlla dalee na aarale ci kaaraangeem aarale rabi àllam ya nga xam ne fu ko waay gis sañ nga ko jàpp aaraale sànqaleñ yeeg melentaan yeeg lépp foofu yàlla beral na ko loxo moo tax mu waxoon ne wa man daxalahu kaana aminan fiihi ayatun bayinat maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana am kaana amina bokk na ci ayaat bayinaat yaa fa nekk ba fi mu toll nii ma nga fa ndox ma mu ñuy wax zam-zam gëstukat yépp gëstu nañ ba far tàyyi xam na li ñëpp wax dëgg la ci googu wet loolu kii mën a suñu borom la wax nañu ne mooy benn bët bii génneem ndox ci li ñu tudde alxaramul makki yi lépp ñeent fukki kilomètres yi wër Makka mooy benn bëtu ndox bu fay génn ba tey ji ba ko suñu dina Ibrahima bënnee ba fii mu nekk mooy mel na ndox moo xam ne it bañ nañoo am na ñoo xam dañ kumpa moo leen fa taxoon a dem nee nañ ku koy naan lu ca waay mën a naan li feeg boolewu ko ko mel ndox du ko yebal ca war a wax kër googu nga xam ne buur moo ko fa def jëli nañ ku nekk xamkatum ndox mu war koo jëlee fa sam di xellee war koo yóbbu ci pale bi nga xam ne ganam ñi dañuy ubbi robinet yi sam-sam di xelli xam sam-sam lànk tànk yóbbu dong la man tànk yóbbu kepp moo tax fii ayatun bayinat yàlla mi moom barab yépp moo ko defal xaas jooju ba garabamee kenn du leen laal ku aj tax a jóg rabe àll mi kenn du leen sala laal yii di mat doxaate ci aw yaram sax dangay fexe ba mu wàcc la dong waaye doo ko doo ko doo ko teg benn coono da koy bàyyi mu dugg ci kaaraagal suñu borom lool kon ku fay dem itam war na ko bàyyi xel moom la alxuraan di wax ne barab la boo xam ne bii yàlla daraan fay yéene ju rafet benn man jaa bil xasanati fa xasana benn bu ko yéene te defagu ko yàlla fay ko benn mu def ko mu tolli ko mu tolli ko ci juróom-ñeent muy fukk waaye fenn lañ gis foo xam ne yéene la yàlla da ko cay fay yéene ju yéene yàlla da ko cay fay lu baree bari ful ko te defagu ko sax muy ku fa dem di fa xalaat ba safaan yal nañu ca la musal wa man yurid fiihi bi ilhaadin bi dulmin nudiqhu min adabin alim foo xam ne waa ji da koy xalaat képp yéene ko sax yàlla fay ko ko ca saasa bu ëllëgee mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal euh, ba ci soxna si nga xam ne fii ci réew mi laata waajay dem lu ne sañ na ko ci waxtu wu nekk moo ne bu àndeek moom ba àgg madina itam fan yam fay def yépp lu ko ci sopp mën ne ko ca jëfandiku waaye bu ñu xasee ba armal nag moo ko jàmbur ñoo yem ci moom day yàqu ajam yàlla di ko ko topp te moo ne soxnaam keneen nag waxutuñ ko moom keneen taxut ñuy wax yan ñu ca musal moo tax mu ne wattandiku fa ay bàkkaar waxuma la yu yu yam rek di ko fa yéene wala di ko fa def ci yi ab ajikat ab xaaj war a jàpp xel yóbbaale ko ci la bokk fala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxaj moo ne aj am na njàngale mu rëy mu fa yàlla daara ju rëy ju fa yàlla ubbil jullit yépp ndax nit dana fa dem yóbbu fa aw melokaan ci siis du ko kenn ak lekk wala siis nanguwut a bokk kenn néeg wala siis ba àgg ci nanguwut a bokk kenn benn lenn benn tiise bu muy sol wala men euh, wenn ñawin bu muy sol ku mu ko gis ci yow xaraamal na ci boppam booba modelu ñaw wala booba façon tiise waaye du jégal kenn dara munta muñ dara fii fii sax bu fi nekkoon bu xawee tàng tuuti mu génn moom yooyu ma wax yépp nit dana ko fa jànkoonteel lu yàgga yàgga yàgga yàgg yàgg ndax euh, ku fa jóge su fa jógee te nekkut jàngut jàngu fa muñ muñ muñalante nii dootu ko mokkal ndax danañ jël dàll yi nga fa tegoon dàll yooyu sax am na mufti bu ma sa def fatwa Eh, dàll yi moom jël ko araamut ndax dàll yëpp niroo mën nga cee bañ a xàmmee sa sa woo jot solal solal rek woo jot solal ndax ñëpp bokk dàll yi ñu sol ñëpp bokk malaanu ñuy woddoo moo ca jël jëlal dug sàcc dug sàcc ngant la ndax daa neexut xàmmee ñëpp ko niroole te am na ñoo xam ne dañoo bëgg ay dàll ba nga xam ne bu ñu àggee ci jotaay fa ñuy toog fa la seeni dàll di nekk ak ñoom ak lu mu baax baax wala ñu ànd ak koo xam ne bu leen ñëpp di nuyu it bala ñoo bàyyi xel kenn koo ko day fab dàllee ba ñu xam ba mu wóor leen dàll seen dàll mi ngi ci diw da fa tege dàll ñu jël sul ko dem da fa teg sab armal keneen jël ko jaawale ko bosam dem te doo ko jàmbat da nga ne kaay leen ñu lekk wala ñu woola nga xam ne ndekete lekk des na ko bokk danga nga fa bokku néeg ak ñoo xam ne xamoo leen guddi xamoo leen bëccëg te fii sax dañuy gis ñoo xam ne bu ñuy lekk dañuy def ni seen mbubb kenn bañ ko ko gis waaye mbooloo ngay bokk di lekk moo xam ne xamoo leen xamuñu la te kenn du tax gàllaaj kenn takk dara lu lay wër lu mooy yaari morso kese buur ak baadooloo ci yam kon ay jikkoo nga fa yoo xam ne ku fa dem bu ko fa jàngut ba mokkal ko fa euh, des na ko ko fa jàngal ndax barab ya mën naa nuroo te sénégalais yi fonk ñu di mën a jàng di fonk ay tablo ñaare jàng ay tablo wala seet fi nga dëkk fan la nu mu tudd déedéet te dañoo wax ne ab dëkk ku fay gan soo fanaanee ba bët set li nga war a jëkk a def mooy dem wuti wàccat ba yor xaalis réew mi ñaareel bi bala nga génn ca dëkk ca kër gi nga jógoon bay wuti wàccat nga laaj fii fu mu doon rii bi nu mu tudd wala hôtel bi ban hôtel la wala quartier ban la nekk daal di jël sa numéro téléphone ginnaaw am na léegi soo demee ba wut wàccat réew mi ba noppi nga laaj fu ñuy jaayee lekk nu mu tudd fu ñuy jaayee lekk nu mu tudd xaalis bi moom su fekkee am na ay xàmmeekaay ay numéro boo mënee jàng tuuti danga nga xàmmee dix wala cinq wala kayit kayit yëpp nga laaj laaj fa ñuy lekke fan la ak lekk nu mu tudd ci réew mi doora seet yeneen yoo fay def lu ama ama am solo la waaye lu ci nekk bokk yi da ànd ak mbooloo mu bare bare bare bari def ko jële fa yu bari ñu tooñ la fa tooñ ku nekk ñu ne la fala rafasa wala fusuq wala jidaal fii ku fi dugg dootoo xuloo dootoo xeex dootoo kaf yenn kaf yi nga xam ne ay caaxaan kese la dootoo maye dootoo théâtre waaye ci lu baax rek ngay nekk yi ma tudd léegi ci ginnaaw ak yu mel na ñoom yu baax yépp waaye kuy dimbali nit ñi nga war a doon waaye ku leen di muñal nga war a doon waaye kuy jànkonteeg ay coono ngay war a doon waaye kuy jiital nit ñi tekki sa bopp ngay doon su fekkee da nga sa ci restaurant bi ñu ne la benn plat moo fi des nga fekk fa aw nit ne bàyyee leen ko te dem feneen ithar waaye awuma weccat fàtte naa fa ñu nar koo indil jafe-jafe nga fayal ko yokku nañ pass bi taxuma ko woon li laa war li laa doon pass diggante bi nga dimbale ko te yàlla tax moo tax am na ñuy tudd ay muxsinoon aj makk yu bari wutiwuñ fa dara lu may dem rek yor xaalis bu bari ngir ngir seet dimbale moo tax alxuraan doon wax ne boole na njariñ aj yépp jaamu yàlla gi ak njariñ la fa nit di jariñ moroomam jaamam ak jàngat ga mu fa jàng yu bari bu demee war koo dund li yashhadu manafia lahum te arkaan yi nga xam ne moo tënk aj yépp li tax yàlla rek moo ko mën a sant nit ñu di ko def bu ci nekk day ànd tur yàlla yàlla da cay bokk bu fekkee armal bi la mooy fi muy waxe ne fa man farada fihinna alxajja fala rafata wala fusuqa wala jidaala fi lxaj dane wa ma tafaalu min xayrin yaalamhu llah arafaat mu ne laysa aleykum junaaxun an tabtaxu fadla min rabbikum fa ida afadtum min arafatin fadkuru llaha inda almasari alxaram wadkuru kama hadakum in kuntum min qabli la min addalin summa afidu min xaysu afada annaasu wastaghfirullah inna allaha gafurun rahim waaye fi muy waxe ci safa ak marwa ak tawaaf ñoom ñaar la boole am na fu mu waxe ci tawaaf ne wal yattawafu bil bayt al atiq dalika man yuazim xurumatillah la am na fu mu waxee ne inna safa wal marwata min shaa'irillah fa man xajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima kon aaye bu ci nekk dangay gis ne tur yàlla ma nga ci biir wu ne fang woo xam ne kenn du tawil ban ban tur yàlla wa man tatawaa xayran fa inna allaha shakirun alim fa inna allaha shakirun alim waaye nag anam gii ma waxoon am na geneen anam goo xam ne mën naa tax nit di aji makka suñu dégloo juróom-ñetti bay di nekk ci Masaalikul Jinaan Sëriñ Tuubaa bind ko yëguñu fu mu masee aji makka de waaye xam gum xam Sénégal ak sénégalais tax na buñ ko dégloo danañ xam ne bari na ci ñoo xam ne bayit yu muy mujje toogoon moo gën ci ñoom toog te yéene am na fi muy waxe ne buntu boobu mooy albaabul awal fi lxalq tàmbalee ci wa ilam wa qaana allahu kulla mahlaki wa qaadana turan bi xayri lmaslaki an iltifaata abdi aabidin lilxalqi taxjubu baynahu wa bayna alxaqi da cay wax ba àgg ci wa baaduhum bi xajji baytillaahi qad gurra wa huwa xayru zintibaahi am na ci nit ñoo xam ne kat aj makka li muy ànd jaamu yàlla lépp ak la ca nekk lépp ci jàngale cala la seytaane jaar yàqal leen seen pas-pas yannuñ ca la musal am nañu koy defee mooy bi axdi maalil muslimina al jaa'i min as-salaatini dawi i'tidaa'i mooy bëgg aji makka képp ngir yi ma jëkkoon wax taqlid la walla aada la wala la ay maamam naka jekk dañ naan aji mu nar a jéeg ren ji bunt bu ne mu fëgg ko bay fëgg ay bunt yoo xam ne sax dëgg-dëgg nit ku yi wuru fa dem ñu di ko fa fekk te fekk la mu fay wut mooy bëgg aji màkk fas yéene jéeg ren ji rek gàpp tax mu ne taraahu daa takarru daa takarru san yi ila abwaabihim taaliba zadin jazala wala boog mu am billet waaye wóor na ko ne billet kese kese kese amul li ñuy wax am la san ba dara amu ci benn dërëm mooy defis amut lu mu fi bàyyi amut lu ñu ko ganale fenn fu nekk mu ne fa salaamaaleykum damay ziyaara ji ren wax na dëgg ziyaara ziyaara siyaaxiya ziyaara mooy nemmi ko rek day fàtte damay aj la ba yàlla ba ba ba Firawna bëggee tuub te yàlla nar mu tuub yàlla daa fil làmmiñam wax tudd yàlla ba tey amantu annahu laa ilaha bu ne woon illa laa rek mën naa am mu baax waaye illa alladi amanat bihi banu israil te banu israil gëm nañu lu nekk waaye kii danaan ma dem siyaara ji te ñëw damaa bëgg siyaara ji ren su ko defee bu la ko yëgalee laata fan yi ñu toll su gënee jege ba ab départ am gën a jege mu jaaraat fa na ñëwoon naa fi dala yëgal damay bëgg a dem nga nekk kon am sëñ mag bi ne da ngay gis gaa yooyu ñuy rapp rappe rek di fu ne ñu wër fa di wutub yóbbal bu yóbbalu lu makka a taqwa la ci yàlla santaane moo tax mu ne wa yatazawadu ila albayt alxaram fi xajjihi dalika bilmaali alxaram cosaani jaamu yàlla yépp sëñ bu mag bi nee na kuy lekk lu lew di tëdd fu lew di sol lu lew di naan lu lew dana ko jaamoo yàlla moo xam neex mu neex ko wala mu naqari ko waaye koo xam ne li muy lekk léwut li muy sol léwut li muy naan léwut faw mu moyee ko yàlla mu neex ko wala mu naqari ko moo tax ma danga gis ñu rap rapi di wuti argent de poche devise ak nuñ ko mën a amee baax na moo tax bu ne la bu ne yàlla labbayka yonent bee ko wax yàlla yonent bi neen yàlla naan laa labbayk wala saadayk yàlla yaa ma woo mu ne man man man man kay wowuma la moo tax mu ne coono bu metti ba bu muy sonn fii ci réew mi laata muy dem mën na ciy dem ba mën naa waral bu àggee lañ fa war a joxe ci ay far ay arkaane ki waajibaat yépp du ca man dara ndax yaram mu tas moo tax mu ne wa rubbama yafuutuhu littaabi fardun fa saara maailan lilaatabi yan nañ ca la musal wa xaysuma rajaa yafxaru bihi ala alquruni aljaalisin antabihi bu demee ba ñëw li muy wër wax mooy ren jii mooy sama cinquantième fois sama quarante-neuvième fois bu demee fañ koy wàññeente ñu naan ren laa am 35 ñu naan ren am 40 ñu naan am sama 50 50 unième ak ren moo tax mu ne bu demee ba dellu si day wër ay moroomam di wanu ci seen kaw naan leen gii mooy sama nangameelu aj waaye nag sëñ bi nee na la ci gën a doy waar suñu borom mi ngi wax ci alquran hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibu yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a moo tax mu ne si wa yaxsibanna kasrata al ataaya gadan wala yaxwi siwa razaaya yàlla nee na ci làmmiñ yonent bi nee leen te ñëw leen ma yee ci ñi nga xam ne bu ëllëgee dañuy def lépp baaxante dara baaxut mooy anam gi la ji demee màkk ba dikk defe ne mbooleem nag defe ne mbooleem lu ñuy digg ci ku demoon màkk dana ca am suñ bi nee na bu ëllëgee kum tàllal loxo sañ nga koo mes bu yàlla bu la loxo yàlla bu ko yàlla tege bu yàlla tegee ca loxoom lam jëfoon dar bopp ak àgg suuf moo cay tege wala loxo dem gémmiñ te du moo tax mu ne wa an walaysa walaysa yadri annahu law jalasa mualliqa xal bi la kaana anfasa ku nar a demee makka nii dem ba ñëw jàpp ne lépp baaxante dara baaxut ndax nam ko faggoo ak lam ci jublu woon képp moo ko koy waral bu ëllëgee nee na kooku li gën ci moom mooy mu toog fii te yéenee dem Makka walla bu gisee ku mën a dem ngir yàlla ku am ixlaas mu jox ko paas ba mu naroon a demee ak devis ba mu naroon a demee te fekk wutu ko nii ñu ko waxee fenn fu nekk fëggu fa bunt ne damay dem su dem jegee mu delluwaat fa ne man neewoon naa leen damay dem Makka ren di seet ñu ko jox ak ñu ko joxut bu ñëwee di seet lu ko way seere lu ko way seere wut yàlla nañu ci yàlla musal kon ponk la boo xam ne ku ko yàlla aj ci aw loosam na fexe wàccoo ak moom su mbindum Sénégal tëjoo it am na réew yoo xam tëjaguñ seen bind te mën nañoo gën a yombale Sénégal mu daal dafay lagg fexe ba matal ko ndax ab jullit su fekkee nee na laa ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxtu jot mu julli ko di liggéey bay génne asaka weeru koor wu ñëw mu woor ko ya ca war yépp mu def ko ca kem kàttanam génn muurum koor dese na ko aj Makka mooy benn ponk boo xam ne jullit bu ko def def na ponk lislaam yépp yal nañu ko yàlla jàppandalal te defal ñu dëgg ak topp yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin